Basumo Basumo Mbare Basumo Mbare parce que tey suñu per colonel médecin militaire bi décédé tey lañ ko denc yàlla na ko yàlla yërëm médecin militaire yëpp si gil ndigaale médecin militaire Sénégal yëpp sama commandant yeeg yéen ñi ma bindal ay garab ba ma mun dem fii si pharmacie bi jënd garab yi décanté sama voix bi yéen médecins militaires yi si jënd gaale pour dugg si su sujet bi nag dina sensible du sensible ndax des fois da ngay wax démb suba maa ngi live xam nga man dum leen ne fii la état de santé Sonko toll man damay live ñun Casamance boobu xamuñu wax di damat wax ji di wut muy rafet di wut muy ñaaw lu naay si loolu ñu leen tàmmal ay état de santé am sori na dafa critique déedéet dañ leen ne Sonko ci combat la nekk te li mu nekk si combat bi daf koy respecté tey bu bàyyee grève de la faim bi ñun doomu Casamance ñu arrêté xeex bi ñun Casamance luy signé ak ñun pacte la dañ koy respecté jusqu'au bout Sonko fa la ñun kon ku tolluwul suñu niveau rek xeex bi nii da nga naan ñàkk nañ déedéet xeex nañu une semaine bëgg nañ continuer xeex bi mais liy continuer xeex bi yéen du ci laay fii liy continuer xeex bi du mbooloo mu bari bi de neneen mooy continuer xeex bi si suuf gàcce gi ma am ak déception bi ma am moo tax ma live nii dama déglu conférence de presse Juan Branco bi ma am gàcce moo suma wax si Juan nay leer rek eh. parce que xam nga rek ñom tubab la te man dama gëm ni ñun jeunesse bi ñoo wara a Ousmane Sonko génné ko mais tay xwan mo gën plus de 1060 prisonniers yo xamné Ousmane Sonko tax ñu jàpp ñu ngi recherché ñep je m'explique buñ délo ci histoire am na Mbàkke Mbàkke yu ñu fi tëj ci kaso bi ñu ngi recherché Cheikh Thioro Mbàkke mës naa fi ne Sénégal màggal fi De Gaulle wala Faidherbe ndax gënul wóor màggal suñu mag yi ñu naan dañoo baax ndax comment ñu mën tëj ak Mbàkke Mbàkke ci kaso bi jël ab doomu tubaab bàyyi ko mu ñibbi ah <laughs> Macky Sall yow au moins yow respecté nga. ni nga waxante woon ak tubab bi yep Macky Sall respecté nako ko ma neex si affaire bi waaw sëñ Assane Mbacké mo ngi ci kasso bi Juan Branco kaso first track te tay mo révéler yeen ci yenen affaire ndax état Sénégal amna na yo xamné ci bir si ko ci de duñ ko wax ci kaw ministre bi génne Juan Branco ñom japp nañ ko antom jom antom jom ya gatch Afrique ya gatch aduna man dama xamul yeen lan mo len dal dama xamul yeen ce que mouche qui vous a piqué quoi ba ngeen mel ni legui lu len neex wax num len neex tego nu len ko neex ngeen ni ko jeffe da ngeen ni fen ci kanamu askan bi ab conviction bo saga nit ñu la bu saga te ñom liñ ñi wax ñun xam nañ ko xex amna fu muy tollu xam nga la laay bañ ñëpp di live naan non Sonko état de santé day dee du dee eh. <clears throat> ñun combat bi ñaari option ngay teg duñ doon combattre ñaari option bi Sonko defee discours laa ñëw ne leen combat bi ñaari option la demaat leen samay live di ngeen dégluwaat li ma leen waxoon soit dañ koy accompagner xeex ren di Macky Sall génnee ko fi ci système bi te loolu day laajte bataille sayir baatin soit dañuy dem ba combat ultime moom bu deewee ñun suñu objectif dootul nekk sa la personne de Sonko objectif bi mooy système bi pas sa personne parce que moom dix ans la war def si état lu metti metti Sonko dix ans la war def état même bu faloo nii deux mandats lay def du ëpp deux mandats après day des icône point final Lolo état moo tax ñenn ñi buñ ciy demee sentiment ni dama naan oh combativité bi doo leen ay combattant xëy na moo tax nan mu leen naan combat bi dañu toll foo xam ku blessé dañu lay jégg ñeneen ñi jël la ku ñemewul jéggi suñu combat bi Juan Branco revenelen, na leen yoon bi Juan Branco mom mo juddo ci deuk révolutionnaire la France c'est un pays révolutionnaire motax ñom buñ ñu bañé bu ñu bëggee ñun duñ doon ay révolutionnaire mën ta nek c'est impossible Juan Branco la ay maamam doon révolutionnaire nay leer ay Juan Branco karak waxna leen ko mu metti ñu bëri mais ay Juan Branco tay yeen murit yeen ñi di ngang ay maami Juan Branco tey ñoo tëjoon Serigne Touba Jurbel ba mënu leen jot si moom ba nu mu sàngoo suuf da ngeen naa mujjee laqatu ñëw sàcc néewam yóbbu ko dem denc ko ay maami Juan Branco ñoo leen defoon loolee. ana boobu mag ñi baax ak ñi leen gëmoon ñu ànd ñoom ay maami Juan Branco ñoo rey El Omar Foutiyou Tall ay maami Juan Branco. ñoo jëlee El Hadj Malick ko pour mu def ay zawiya pacifié aywa ay maami Juan Branco am na ñu jëlee gànnaar dugal leen Sénégal ay maami Juan Branco ñaata boppu buur la ñu dagg saa dangay wax ñu ne la non lan moo tax Sonko am avocat tubaab waa léegi tubaab bi bu ñu ëppee conviction nag.

mais pas Ousmane Sonko Pape Alé Niang moom journaliste la amuñu droit denc ko day def grève de la faim te génne nañ ko Cheikh Bara sama grand bu ragal bi <laughs> moom bàyyi leen Cheikh Bara dem amuñu droit jàppati kenn ci kaso bi ndax Juan Branco ñibbi na dèjà ndeysaan benn doomu tubaab moo gën ñun suñuy mille et quelques personnes ba pare yéen sénégalais yi nag ñëpp a ngi scotché di seetaan conférence de presse bi te amuñu si jàngat benn tubaab benn benn benn moo gën ñun suñuy junni prisonnier politique ñoo xam ne jëmmi Ousmane Sonko leen leen tëjee te li tubaab bi def ku ko defoon tey xam nga tey lu ñuy teg sa ndodd terrorisme xanaa ñoom ñoo ne woon tey tubaab bi dañ ko def noonu mandat d'arrêt international Cheikh Yérim Seck lu mu leen waxul ci Juan Branco ana Cheikh Yérim Seck lu mu leen fenul si booy bi amul booy bi tey bi mu ñëwee tey aéroport kan la doon xaar police ñoo ko escorté noo fii la Afrique war toll lii la leen ñoom Assimi Goïta woo lii la leen ñoom Ibrahima Traoré woo ñoom Macky Sall nag lii la ñu bañ Afrique toll ñun war nañu gëm suñu bopp tey ba dépassé fii booy bi toll Sonko bu demee bañ koy tegal oxygène muy respirer ñun ñoo tax combat nag boo leen gisee ñun bii ñu ànd seex dal parce que xam nañ fi ñu jëmee suñu combat bii métti métti dañ koy xeex métti métti dañ koy xeex <coughs> démb VDN 3 bi wetu Wakhinane Nimzatt gàddaay fële commissariat ba lu ñu def booy ñu jàpp samedi lu ñu leen def gars yi foofu si kër yi am na ay commissariat am am na ay caméra du moins yéen géejawaay prenez vos responsabilités de booy ñu jot jàpp si week bi dër nañ si ñaari booy rey leen yóbbu leen ci filaa yooyu noonu ci VDN 3 bi sànni leen ba démb population bi ñoo si yem dem leen xool kooru booy yi ni leen torturé géejawaay loolu dem trois heures du matin lañ ma yee nii wan ma vidéo yi gars fekk leen fa di dóor booy yi pour police ñew ndax xam nañ ne ñoom ñoo rey xale yi sànni leen booy ñu japon yépp ci koso bi dem commissariat boobu dañ leen libéré gaaw ci guddi ndax leen ray nañu ñaar ba pare gëna leen dem sanni leen ci biti avec ça ngeen bëgg kenn du wax té tay buñu ñu jekk woon sonko légui non buñu ñu jekk woon Macky Sall légui du mo ñëpp wax démb géejawaay yaayu deux morts ci commissariat bobu waxina nimzat sous couvre-feu partiel. Vous nous il y a un grand 20h, 19h, policier autour. Prenez vos responsabilités. Nan café, vous avez donné un café. Avec des origines, vous avez pris vos responsabilités. Vous avez pris vos responsabilités. Vous avez pris vos responsabilités. Vous avez pris vos responsabilités. Vous avez pris vos responsabilités. Vous avez pris responsabilités. ñu ñëw policier bi ñëw gëdd ko di ko jaay réew mu waaye ne ko jaay ko boppam ne ko man dooma yëpp anamu nokk ci kaso bi pour lan géejawaay nga ne doo leen xeex xam nga léegi xam naa lu police xewal nga ne doo leen xeex yéen ñi bañ xeex léegi seen tuxukaay yàmbaa yeeg seen daaga yi ndaw ndawaan yëpp lépp laay toj ndax lépp laay wax si laay policiers yi fekk leen fa toj seen lu bon di ngeen xeex par force di ngeen xeex xeex di ngeen xeex booy moomu leen ñu mun leen dëkk bi saa bu amee problème ñu ne tekk mun ta nekk mun ñu ay gël tàppe ñooñu ñooy xeex te waa gël tàppe Grand Yoff ñëpp oh gars yi ne nañu waa Casamance ngeen jiñ nañ leen ko de parce que booy yi ñu jàpp si commissariat bi de xaar leen procureur dina waxaat ay Sagna Badji Bodian boo santee Ndiaye yenn procureur yi bàyyi la yenn procureur yi jël seen responsabilité ñëpp la ñuy bàyyi nañ ko waxta dee sant waa Casamance la ñuy bañ biir Dakar moment bi sant waa Dakar am na ñoo xam moment yi dañuy contrôler nii oto yi dugg Dakar amal santu waa Casamance xool est-ce que ñun fa la ñu war toolu gaa yaa ngi dee de yi morts plus deux yi kon duggaat nañ dix morts wax ci wax ji gaaw wax leen ci wax ji sëriñ si wax leen ci wax ji seen màggal Tuubaa bi ngeen bëgg a sauver sax tax ngeen bëgg sacrifier Ousmane Sonko Ousmane Sonko kenn du ko sacrifier ndax mom ci combat la combat bi c'était prévu que moi, moy suis wala Macky Sall légui nak ñun ñu kan c'est au peuple sénégalais c'est à la jeunesse de décider qui va perdre ce combat là point final. ça ne sera pas à Ousmane Sonko ni à Macky de décider à notre place de décider à votre place vous les jeunes.

ndax bi mu nangu woon nangootu ko pour muy clair moo tax ñu door ko oxygène état de santé nag depuis démb maa leen di wax ñëpp di lamenté wu on s'en fout dañ leen di wax fi mu tollu ci xeex la nekk moom ji jixaat la ko def lii mooy jixaat ngir sa démocratie lii mooy yow Thomas Sankara newul ñu ko Blaise da rey mu xaar ko Blaise ñëw door ko bar ana tey esprit Thomas Sankara desul ana tey capitaine Traoré dellu sul esprit Thomas Sankara fa lañ toll ñun yéen a toll ci ay sentiment ak cam la nga lal ñun tollooguñu foofu ci combat bi romb nañ loolu ñun Sonko xam ne bu baax lu ñuy wax ñun Africa la ñuy wax fu mu toll nii. Macky mënatul si waa ji dara romb na ko ba pare Sonko nekk na icône bu jàllee ñu élection c'est fini il va diriger l'Afrique waxuma leen Sénégal de l'Afrique moo tax ñun sonn ñu xam nañ ne lii mu nekk nii bu si jógee buñ ko faytee mu jóge si day jàll. ñëpp a ngi waxtaan ak moom maa leen koy retatati depuis keroog mais moom moo nangul wax kenn li la kilifa yi di wax c'est clair sa booy bi dafa dëgër bopp dëgërul bopp waa Casamance la lu ñu màttu ñun dañuy dem ba sës combat nag ah du lépp la ñu loon mën a wax ci kaw de moo tax temps yi ngeen dégg gaay yi naan leen paypal ak ñu cotisation ak léegi xam nga rek gars yi léegi da ngay dajale lépp ñu ñëw fekk fa booy yi dañu bëri tóob moo tax ñun fi ñu toll xam nañ ne lu violent dina am combat bu violent parce que biir gendarmerie am na ay pro Sonko biir armée am na ay pro Sonko biir commissariat yi léegi day am ñuy wax ak ñu dootul wax am ñuy téléphonante ak ñu dootul téléphonante ndax lan Sonko et Macky léegi dëkk bi nekk na deux camps moo lay wan ne toj affaire bi yomb na fu mu toll nii. bëgg a bëre bañ bëre yéen rek la ñuy ñaan ngeen jàpp ci combat bi njabootu Sonko tam bu leen fàtte de. parce que dañu bloqué seen lepp njabootu Ousmane Sonko di leen ko bayyi xel njabootu Ousmane Sonko di leen ci bayyi xel ñom même buñ ko demandé wul yeen def leen ko wareef la wa koñ gi ñu ngi def lepp ndug ak lepp malgré njaboot gi soxlaaw ñuko mais men gère en attendant ñu pare combat bi parce que ñun ñëpp si combat lañ nek moment gi ci ginaaw lay njaboot gi moment ci ginaaw lay nek on s'en fout on s'en fout bu ñu lekkee bu on s'en fout on s'en fout ci combat lañ nekk foog ñu gagné combat bi bu Sénégal baaxee suñu njaboot ci lay gën taxaw que Sénégal di kayang kayang ñuy jóge ko daanu déedéet on s'en fout. yéen samay goro nak yéen lay waxal mere ngeen ma lool mais ma astafurlaa ci xex la nekk je m'en fous damay xex ba paré après luñuy gérer ñu gérer ko ay affaireu njabot xex bi ni soxlaatuñ ci sentiment sentiment mënutul gagné xex bi ku am sentiment do yeggali li ñu nekk. endurance la dafa gudd six mois yi moo raw cinq ans yi Sonko romb six mois bi moo raw 2014 ba léegi donc préparez-vous acide lactique yéeg na tànk yi diis na daw gañe moo ci des daw gañe bi nag sama yoon nekku si ñoom ñooy subir conséquences yi fi réew mi jëm xam nañ ko te dalee ni bett ndeysaan moom lu mu métti lu bette mooy am ci réew mi <laughs> Macky sal wacc bu gaaw ngay wacc xam nga bu baax fi ñuy waxee Sonko dëgëroo bopp fi nga jàpp foofu la waa Casamance la lu ñu xasamaat dañ koy def ay la garde on a gagné la guerre c'est fini Sonko moment bi ñoom ñoo féetewoo waxtaan mais tant que mille personnes yi génn ñu prison Sonko day deese law lalu hôpital bi su boobaa nag yow Macky Sall on va voir l'âge que vous êtes Juan Branco un enfant de blanc vaut mieux que 1060 Sénégalais emprisonnés. 1060 Sénégalais emprisonnés, torturés, emprisonnés sans dossier. Juan Branco qui a un dossier lourd. ñu terale dugg nga dugg si def lu la neex ñu emprisonné le ba pare passé le sa billet nga ñibbi si France benn tubaab loolu leen Macky Sall woon France moo gën Niger France moo gën Mali France moo gën Burkina heureusement songal Afrique yëpp ñu le lay Macky les chef Sénégal l'armée on vous supporte pour un coup d'état on vous supporte pour un coup d'état de liberté on vous supporte pour un coup de souffle de liberté moi je supporte l'armée sénégalaise entièrement s'ils sont capables s'ils sont des hommes de prendre le pouvoir comme ku comme ku wax lolu rapatrier je supporte l'armée sénégalaise à 100% pour qu'ils prennent leurs responsabilités, surtout vous les jeunes officiers. Prenez vos responsabilités et dégagez Macky et sa femme du pouvoir.